عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق baat bu oyof la waaye ku defut luñ la ko waxee kenn du la ko wax Mbaye nag da koo def démb ba yàlla waxee alastu bi rabbikum ruuxu yëpp le balaa biñ ñëwee ruux yi dugg ci jëmm yu lëndëm yi ñii jaar nii ñii jaar naa wala yàlla dimbalee nag bàyyi woo yoonu Cheikh Ibrahim jërëjëfee bàyyi rek moo ci war toog foo mun ci toog kon nag jërëjëfee Mawlana Cheikh Ibrahim ñu ngi nuyu bu baax suñu xarit suñu àndandoo ci yàlla xarit bu yàgg Cheikh Ousmane Mbow di nit ku yàlla baaxal di liggéeykatu yàlla bu mag suñ xarit ci bi dem te ba léegi tàqalikoo wuñ moom it xam naa ne bëgg lu baax rek moo ko indi ba fii ñu ngi lay nuyu ak mboolem muqaddam yi mu àndal mboolem jamaa bi mu àndal di nit ku baax te sëriñ bi tamit muy ku la fonk lool ndax saa yi ñu dana ma ana Cheikh Baye saa yu ñu déggante téléphone mu ne maanaam Cheikh Baye ku bëgg Baye Niass ak njabootam gi la sëñ bi ñu la naan la ci yoon la nekk ñaanal ko yàlla ndax ndaw yi pay bi di tiitaroo dëgg dëgg si la lay wax xamul leneen xamul leneen bi ñu ngi lay tafegal di baax a baax la yàlla barkeel say mutal sa dal yëpp mu ngi ànd ak Oustaz euh, Mouhamed nga xam ne moom itamit kenn du ko présenté fii Gambie ndax Serigne Hady du fi ñëw mukk lu dul ñoo fi ànd lu yónnee lu dul moom la yónni te ba léegi tamit mu ngi jox Serigne bi loxo moom itamit ñu koy ñaanal bu baax bëkk néegam ni loxo ndey jooram Babacar moom itamit mu ngi ànd moom mu ngi euh, ñooñu la àndal ñëw mbokk mu baax muy Pape Biteye moom itamit mu ngi Ibrahima Diankha moom itamit bëkk nekk Serigne Adi nga xam ne ñu mucc ci moom moom it ci la bokk moom itamit mu ngi ànd ci mbooloo kon ñu ngi delluwaat di tatagal di ndokkeel aji ndey ba bu baax seen bàyyi mu ne ñu lay ndokkeel ndax sa taxawaay rafet na kóllëre gi tamit wàññiwoo ci dara loo am Serigne Adi ko gënal bàyyi rek nga bugg te ñu xam nañ ci dara ñu lay ñaanal yàlla yàlla yàggal la fi lool. bu baax nga barke démb rek nga jógee tay ba te borom nga ne yaa ngi waajal bés bi waaye bàyyi moo jaral bés bii ku ko mën a taxawal te saxal ko mën nañ seedal mbëggeel Mawlana Cheikh Ibrahim kon ñu ngi lay yi bàyyi ànd ak ne ci kon dëgg-dëgg aji ndey ma ku bëgg bàyyi nga bëgg njabooti bàyyi nga ko lëre ci sëriñ waxtu wii bésu tey jii seen bàyyi bëri woon ci loolu ay programme waaye daf naan bés bii moom du ko boole ak benn bés dem na ba nangootu cee jàpp dara te bésu suba ji noonu bu ngi am ñetti gàmmu yu koy xaar foofu mënoon na neneen waaye fii lay njëkkee def li muy def ndax kóllëre démb bi du ci dindi dara ndax yow it sa taxawaay dafa rafet sa njaboot say rak ak say mbokk say am di jàmm yëpp nee mu ngi di nuyu mu ngi lay ndokkeel mu ngi lay ñaanal yàlla bu baax yal na yàlla taxaw la kon ñu jox Cheikh Hadji Abdou Salam mu jeexe ci ay kàddu bu paree ñëw continuer li ci des incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi maa ngi leen nuyu bu baax di leen ziar kilifa yi ngi maa ngi leen di nuyu nekk maa ngi jiital li nga xam ne mooy kilifa jotaay bi teew teewaay maamam Cheikh Islam Alxaaji Ibrahima Niass teew teewaay teewaay baayam ak xalifa Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima am ndigal nag moo xam ne dama ko amoon xalifa bi fan yii maa dem Cheikh Baye oo ma téléphone ndax dafa nekkoon ci benn xalifa bi. alfa bi nekk ci xaal bu neex a neex xam nga oustaz Barham Diop daañu nekk ni ne bàyyi des fois nga koy fekk ci xaal boo xam ne xaal yu yu neex la nga xam ne boo toogee rek loo bëgg rek yàlla def ko Cheikh Baye Baye ma sëriñ bi nekk ci xaal yooyu mu oo ma téléphone ma ñoom fekk ma léegi kër Pape Cheikh nekk daan nañ faral di def ci jotaay bi ma ñaanal yàlla Cheikh Baye feddali ko loolu na ko xolam ci jotaay ci joxe ndox ñu bi daal di kontaan loolu daal di ma ci encouragé ba pare ne naa ko saxal moo tax bi ma Cheikh Baye waxee waxal sax dama ne su may wax ci loolu laa njëkkee ñu ñëpp ñu jàng Fatiha salaam ci Fatiha bala maa wax dara ñaanal ko moom xalifa Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima mu ànd ak wér ak wërsëg bu bëree bëri bëri gàmmu Tayba gii yaakaar naa ne weer yu ñu nekk lépp mën naa nekk gàmmu Tayba ndax Cheikh Hadi Diallo ngi koy junj ndax gàmmu Tayba gii sëriñ bi ñu ci teewee mosu ñoo gis mu teewee ko ci gàmm ñëw ci cérémonie officielle bi toog ba mu jeex ñëwaat ci guddi gi ubbi ko ñaan loolu tey moom mooy royaat fii nii ci gàmmuwaat gii ndax lépp rek gàmmu Tayba la rajab boobu nga xam ne bàyyi daf koo juddu nga xam ne yàgg naa génne ay màndarga ci ay kilifa yoo xam ne juddu nañ ci rajab boobu rek dafa firndeel ne bàyyi mën naa indi dara waaye moom daf koo junju si benn baytam te aw jëlani xaqan li jabal kasri inna ni wakiil sirri sirri yàlla daf maa ma may jàng damm damm te xam nga benn la ni ñu bindee rajab moom la ñu bindee jaww comme rajab moom mooy jàng kon bàyyi moom moo ñëw pour jàngalu dama dama yooyu li tax nag ma njëkkee ci jotaayu xalifa bi ak sëñ Cheikh mooy damaa wax ne ñun war nañoo sant yàlla ak lépp taalibe boo xam ne da nga aju Cheikh Mahamadul Haaji Cheikh Baye mi jiite la nga nekk ci gannaaw ndax fi nii mooy wéetale xalifa bi jotam dëgg la gàmm yi sonal na ko lool daje euh, yi solal na ko lool waaye fi mu ne koo gën a solal ndax waxtu sëñ bi mi ko soxla ci fajjam maanaam suñu jotaay bii bu demee dana nettali sëñ bi li ko fi gën a neex bu demee dana ko nettali sëñ bi sëriñ bi kontaan moo tax di teew di toog ak moom di teew ak moom même moom sax muy xam sa soxla xam naa ne lu am solo la ndax moom dafa am itte macha allah kum xam soxlaam kum xam na ni ku baax nga rek dana loo jox soxla boobu te li muy xam nañ loolu. kon Cheikh Baye tey du ma guddal lu dul di la ndokkeel waaye di ndokkeel yaay Baye muy sama maam Asou Diam ka Adja Ndeye Ba ñu ngi lay ndokkeel bu baax bés bi ku gis xam ne bés bi ci xol nga ko tibbee ndax ku fi teew rek dana gis teewlu nga xam ne nit ñi dañoo teew pour root te Baye moom mooy faydu rek lépp loo xam ne da nga ko indi rek dana la ko rootal ba mu fees ngay ñaanal yàlla jotaay bi yàlla ko yàgg taxawee. dafa naa ne yow ak sama papa alhaji Barham ne kenn ñu ko leen taxawal gàmmuwaat tey ba ci àddina léegi nag àddina yëpp ñu ngi leen mu ne ba weeru koor incha allah foo dem ci topp bàyyi ci àddina ñu ay gàmm tuddee ko gàmmu tey man daaw ci heure bii maa ngi maa nga gànna ñu ngi taxawal gàmm yoo xam ne ay gàmmu bàyyi kon loolu yëpp sant yàlla la te bàyyi moom dafay teew mi ngi defal ay xam ne. boo ko xoolee rek yow da ngay xeeb ne bëgg nga ko bàyyi waaye rek ñu sant yàlla te bàyyi lépp loo xam ne boo ko jóge sa jox rek da nga na sant yàlla xam ne yow li am lu rëy la kon ñu ngi leen ndokkeel ñu guddal ci wax ji ndax borom jotaay baal bi Cheikh Baye sax man xam naa ne ñun ñëpp buñ toogoon bind ay sax si bind ay conférence waxtaan ba bës set buñ ñëwee dana mën a wax lu ñu wax ndax maa ko fekkee ba mi jàng mën nga génnee usulu diin usulu diin ku ko xam danga ne at mi jot danañ la tegal lu mat juróom fukki téere loolu yëpp nga war koo mémoriser sa sa sa bopp yi war koo imtixaan kooku nga wax du la jaaxal waaye doyoon na rek ñu ne doomu Cheikh Mouhamadul Haadi la kon duñ a guddal ndax lépp lu ñu wax rek bu ñëwee mën naa wax loo xam ne ni dana gën a feesal diir yi dana gën a feesal bopp yi waaye dana gën a yokk mahabba yi nga xam ne ñoo bëgg bàyyi toog ñu xaar ñu ñaan yàlla defal ko toog it jotaay yi nga xam ne daf koo taxawal ngir wut si bàyyam yal na ko yàlla dimbale dëgëral ko waaye ñu ànd ak moom di ko jàppale yàlla dëgëral leen yokk leen yokk leen teewal yokk leen wërsëg yaa rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jégalu ci kàddu yi bu baax di gàttal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Jamais Fatima. Alaaji Ibrahima Niass ñu koy yéene yàlla yàgg fi lool ci wér ci barke baayam خليها طفل في الظلال وفي مستوضع حيث الصبر والعقل ثم عبت البلاد لا بشر أنت ولا أغاث ولا علق بل نطلة تركب السفينة وقد الجم نصرا ولولا رحمه ولم تنال الخليل مكتتبا تجر بها ولسنا خلقه تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم لا توقف حتى احتوى بيتك المهيمن من حنك عليها تحت وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت من نور ونحن في ذاك الضياء وفي ونور اسم الرشاد نحترقه اللهم انا نسالك بجاه الممدوح لك المادح وان تعظم حظنا من ذلك النور والضياء وان تهدينا الى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل النشأة يا آدم والكون له دخول ولا أين هم مهلك تناك بعدما على لا خلق الله الله وصل على سيدنا محمد الفاتح لما ورد والكاذب فتاة في تاجي بني بجبنه لنوح المصباح بجل متاقدي فمن كان عمر لا يكون كأحمد نظام للحقين كان للملحدين أمر عليه بنبوة خاتم من الله برهان يروح ويشهد وطم إلى أسفل النبي نسبه إذا قال بخمس وزن وشهد وشق له من اسمه ليجله وذو عاش محمود وهذا محمد تخدمي إن قتل أدناه متجرا المدرك الرجال ليلة الظلم وفي عصفي أوتنا مدتي ما لمناه من لين من كرم إن رسول لسيف استطاع به مهند من سيوف الله أبي بل استسم غمام بوجهه اسمع اليتامى يصمت الأرامل يضرب به لا كفنا جاشم وعندهم بنا متى وفواضل دع ما دعت النصارى في نبيهم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 وقري شريعتك المتلذي بتوحيدك نسيان الوجود وسبب كل موجود عين عيان خلق وتغضي من نور ديائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة له تعالى دون عنك صلاة تدرك وترضيه وترضى بعنا ووالدنا وشيخنا وذرياتنا يا رب العالمين لسانة من عزهم أقدامهم فوق الجباه إن لم أكن من أمري فبهم عزبجا وبجاي مدرزهم طيب لنا شحيا واكتب لنا بخيريا من لنا رب سوى تنيعة ربيعي بمن حجري أقل يا مقري تنيعة ربيعي بمن حجري

لمعة شمعة حبس قصدني اعتزاز الخلق وأبوك الحطام رئيس القطاع واشفى لديه تقبلين يعني عباد الحكيم شقيق العقبة

مرضى عملي تهدي أطيارها بمرعة الشميرة واجعلي في حسنى مقام الاسنى ربي على عجاب بمرعتي الصور salawaatullahi wa salaamuhu alayhi wa alaa aalihi wa ashaabihi al-haadiina al-muhtadiin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin wa ba'd wa tahiyyatu l-yawm wa dhikraa li saahibi dhikraa mawlaanaa Cheikh al-Islaam Alhaaj Ibrahima Niass radiyallaahu anhu alladhii laa taxtawiruhu l-uyuun الإسلام الصمد ولا تطيعوا الأذان إلا من سقم ولا تطيعوا القلوب إلا من سقم وهو من ذا السمع والبصر والفؤاد من لا يعرف هذا الشيخ الجليل لا يعرف كثيرا من الكرم والجود والإحسان والحب لله سبحانه وتعالى ولرسوله والمؤمنين وهو صاحب اللفظ الجزم هو صاحب الكلمة الطيبة التي تحترق القلوب وما برهم هذا إلا سهم من سهام الله سبحانه وتعالى يجذب القلوب فتنزف دما فتنزف العيون دمعا حبا لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللمؤمنين ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الشيخ ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا دائما محبة الشيخ بجاه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكي جامبيا góor ak jigéen ndaw ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci yéen turam waaye di jagleel nuyoo xaas nga xam ne moo ñu jagleel teraanga ji Ba moo woo fii woo ci yàlla waaye woo ñu ci Magal din sëriñ Mawlana Cheikh Islam Hadji Remes Magal di doom Magal tuddam te màggal ko nag mooy màggal lu yàlla bëgg mooy màggal jëmmi leer jëmmi xam-xam jëmmi cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi jëmm joo xam ne ne képp ku ko màggal màggal nga yàlla màggal nga yonent bi màggal nga chamatiani màggal nga xam-xam yàlla ci dajee bii nga xam ne dajee bu neex yàlla la sant yàlla ci daje bi nga xam ne bés na koo ajuma nga xam ne yàlla ci saa soo xam ne képp ku nga danga la ajuma yàlla moo def na mooy sang bés yëpp weer wi tamit yàlla def na mooy weeru rajab muy rajabul fard ashhurul xurum yi ci la bokk ñeenti weer yi nga xam ne ñoo gën ci weer yi waaye weeru rajab bii gëne ne leen lu bëri ndax ci la yàlla la ñaanee yonent bi alayhi wa sallam mu bàyyi ko makkatal mukarrama jëm baytul maqdis lu jiitu yàlla dafa lool teg ko ay natt yu tiis yu métti ba mu mëñee natt yooyu nag ci la ko rañaane jaam dafa war muñ ay métit muñ ay dogal métit yi bokk na ca keroog ba mu génnee ne am kër bàyyi am nga kër nijaay naa dem samay kër nijaay ca taay samay mbokk yaay ñoom Abdou Yalila ñoom Abdou Shams ñoom Abdou Dar gaaral leen li nga xam ne moom la waa Màkka def ci buntu xatar ci sonal ko ndimbal ba mu ñëwee wax leen luy yoonam da leen man kat sama borom moom mooy yónni waa Màkka ne lu ma ko fi wax yemul ba waaye sonal nen ma lu nekk daf ne ma ko ci xeeti mbugal ñoom ñu ne ko yow yonent bi fekkee ne yàlla la yónni ñun ëpp nga ñu mënuñu laa déglu fekkee ne da ngay sonal yàlla rek wala da ngay sosal yàlla ñu ko sosal yàlla mënuñ koo déglu. ñu génnee ko yemu ci génnee ko waaye ñu buntuxatal ko saaga ko boo seen jigéen na leen wéy leen ko wéyu bon boo seen xale yi na leen sànni leen ko xeer ba mu génn dëkk Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu génnee ko ñu koy sànni xeer ba deretam ni di tax di nàcc a ci kaw suuf yeneen tubi di jël deretam bi koy tax ci kaw ñu raay ci kaw te xam na ne bés deretam doxee ci kaw suuf rek yàlla dina xalaat àddina yamut ca loola waaye mu yërëm leen jéggalu leen yàlla allahumma hadi qawmi fa innahum laa ya'lamuun yàlla nga jubal sama xel ndax xamuñ kooku mooy jëm yéen bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ba tëdd nekk mahaan yi ci la ko jibril fekk foofu laal tànkam ci waxtu yi la woon ci weer yi la woon muy rayul rajab laal tànkam yenant bi jub xool day joor ak càmmañ gi sa dara mu tëddaat ñëw yoonu ñaareel laal tànkam yonent bi xool ndey joor kaw gisu dara yoonu ñetteel nag ba mu ñëwee moom Jibril dafa feeñ ñu boppam ci melokaan nit na ko sa borom moo ma yónni ci danaa la rañaane ba wuyu muy ànd ak mu ànd moom alburaax nag bàyyi ne fas la woo xam ne moo gën a fas moo gën a njool mbaa ci gént bi nekk mu ne nag tas woowu dafa gaaw a gaaw a gaaw goo xam ne fu bëtam yegg rek wéyam ba daal di fay dal ba yéenatu bi yeggee rek wéyam bëtam bi daal di dal baytul maqdis wéyam ba daal di fay dal moom al buraq yéenatu bi ci mawut jibril keroog la fekk mboolem yéenat yi muy téeméeri junne yéenatu ak ñaar junne ak ñeent bu jiitee lañ julli suba continué asamaan su njëkk jibril fëgg kookan la jibril yónni ne ko yónni ko mu daal di koy tijjel yonent yàlla aadama la njëkk a fekk ci yoon ci asamaan su njëkk bu fekk yonent yàlla yaa ak yonent yàlla isa ay doomi nday jibril fëgg kookal la jibril ko ànd ak muhammad yónni ne ko yónni ne ko kenn du laajte kan mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ñoom ñëpp yaa wa idh qala allahu midaaqa nabiyina lama aataynaa min kitaabin wa hikmatin ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري قال أقررنا قال فاشهدوا على محكم الشاهدين ñoom ñëpp seede leen bind leen nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy seen ilimaan mooy seen njiit saa yi leen fekkee si yoon bi rek ñoom seen mission jeex na ñu daal di yem foofu ñoom ñëpp wax leen aqrarna nangu leen ne yonent bi mooy seen ilimaan ñetteel fekk leen ci Yàlla juróomeel bu fekkee yéen si yàlla xaaru jibril bëgg ko wala jibril ko ànd Muhammad yónni na ko yónni si juróom benneel fekk yéen si yàlla Moussa ko wala Muhammad yónni si juróom ñaareel juróom fekk yéen Ibrahim mi bàyyi tuddee woon abul ambiya ci la ko mën a bàyyi tuddee woon abal tawxiid tamit jibril fëgg kooku àlla jibril ko àlla Muhammad ko yónni ko Ibrahim yonent yàlla ne marhaban ñu baax ji marhaban bi sang way njëkk way mucc mu daal di koy tijjil mu ñaanal ko mu continuer asamaan si ba jeexal asamaan yi la woon muy weeru rajab nga yàlla woon àla chaq sa mu dem baytul ma'mur dem sidratul kursiyu dam arsh dam mustawan di dem ba dem waay jeex ah jibril taxaw na ko sang bi kat laa mën a yem mu ne ko ah naka ngay ànd ak sa xarit ci tukki musul mii ba ak ci fu mu gën a ko fi nga mu ne ko ah sang bi kat bépp bu ma xoo ci pays rek safara dina ma lakk comme ni la koy jungóor fii rek da sa may maqaama pour màgg ci noonu ci la ko yenante bi laaj yow jibril maa yow ku mag jibril la ko ah sang bi man mag laa lool mu ne ko luy sa tettal na mag nga jibril na ko ah luy sama tettal mag laa man yenante mooy na am na benn biddiw bu daan fàqe koo kursiw jëm mustawan te biddiw boobu fàqee balaa fàqaat dina am ñaar ku junnee te biddiw boobu fàq nag sama kanam lu ëpp juróom-ñaar ku junnee ak ñaar ci yoon jibril bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag jibril ana dalika alkawkab alladi raaytahu bi xijaabi man naan yaa jibril man maay kawkab man maay leer boobu nga doon gis muy jaabante ci juróom-ñaar at yu nekk man maay leer boobu noonu kon nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo fi jiitu leer leer boobu nag bàyyi nga koy tagg te xam ne koy ñëw léegi ci siira bi te wax na wul wala lu juudu wujudan fa waslu rusuli wala jaani leer googu mooy leer yàlla gi nga xam ne yàlla bu ci boppam feeñu boppam ci boppam jëmm jooju teew ci kanam nga xam ne Muhammadiya leer googu nag du ci xuus xam naa xam na see ñëw léegi ci séeréer bi waaye nag yonent bi nag di xuus ci pays ci noonu ci la déggee ay baat muy Abubakar ak Umar ak Usmaan mu ne ah sama ma ci kanam waaye kenn amul maqaama àgg fa ku dul yonent Muhammad sallallahu alayhi yonent bi dem baqaa baqa sayna aw adnaa fa awxaa ila abdihi ma awxaa yàlla yànkil ko lu mu ko yànkil ilmul awwalina wal axirin xam-xam yi bii mun na ko xamal ko mboolem mbindeef bii nag ko jégleel ko ñenn ñi xaas yi mun na xamal na ko ko moolal ko Ousmane benn bi nag diggante moom borom moom mooy ñetteel bi diggante moom borom moom kenn du xam ko du ñu ñaan kon nag ko jox julli ci rañaan yi la ko amee juróom yu julli muy wàcc ci Moussa Moussa di koy wàññilul fukk par fukk par fukk ba mu des fukk mu ne ko ko ba des juróom mu ne ko demaatal ma ko dañoo teel te lii muñ koo jox mën a ñaanal rek yàlla mën na dox ñu yàlla wax na ne képp ku julli juróom yooyu noonu mu yëgal la ci xam si ñi nga xam ne juróom yi ñi nga xam ne moom loo waxoon ne ne moom la farataal yaa yonent bi wàcc ci nekk maan xëy nettali leen ne kat démb sama borom daf maa la ñaane woon dem naa baytil maqdis ñu ne ko bu mu kaw waa màkk ñoo la gën a noonoo ñoo la gën a sonal bët bu set nga wax fii loo xam ne ne xel mënu koo dégg te ñoom boobaa dañ lay gën noonoo rek te baytil maqdis gii nga xam ne waa màkk bët bu set ñu dox doxe ñaari weer la ci dem ñaari weer sur le tour muy doxam ñetti weer nga ne dem na bu guddi gi ñëwaat loolu daal boo ko waxee dinañ la gën a wéddi rek yonent bi daal di fi tëdd ko fekk leen ci seen naadi ba ci seen grand place ba mu ne ee eh, Rabiatu ee eh, Cheybatu ee eh, Utbatu ee Abul Walid ee Abul Hakam Aba Jahl ñoom ñëpp woo seen tur ne leen seen maam Ibrahima nuyu na ci guddi gi ñëwaat ñu hee kii fenkat moo gën a màgg ci mboolem fen yi dana dem nga kii baytul loolu daal tey tey mu leer ñu baytul maqdis gi nga xam ne ba sa ñu nam fata buñu demee bala ñaari weer ci dox aller retour muy ñeenti weer nga ne dem nga ci biir ñëwaat ñu daal di woote commencé koo fenloo ci noonu a si leen gis Aboubacar mu di ñëw mu ne ko kaay dégg lu sa mbokk mi wax mu ne démb dem na fekkee ne moo ko wax rek dëgg la loolu moo tax ñu tuddee ko Siddiq Abubakar Siddiq lépp lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi na leen mu ne leen yéen am leen ci waaye amaan man bu koy ci wax yàlla man bu waxee ne dem na baytul maqdis gi nga xam ne yéen ba seen ngeen nga daw rek dëgg la mu ne loolu leen loolu laa leen mën a wax yonent bi sallallahu alayhi leen loolu laa leen mën a wax waaye démb ci guddi borom yàlla naa boole pays dem naa ba dajeeg sama borom loolu yàlla may woon ci bés wala ci weer yi waaja yi Mawlana Cheikh Islam Hadj Ibrahima nga xam ne xam am nit nag booy uti ngëneel da ngay seet ci borom ngëneel nga dem uti uti ko ko waaye koo xam ne ne yorewul dara boo sukkandikoo ci moom da lay xalaat Mawlana Cheikh Islam Hadji Ibrahima moom nag mu ne yàlla may na ko xolam bi amul kenn ku ci am cër. loolu yëpp baatam mbëggeel nit daf koy am ci doomam am ko ci taalibe am ku ci soxnaam am ku ci xaritam waaye nag mu ne moom yàlla baaxe na ko xolam bi maa fi xamul li xayri Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amul kenn ku ci am cër ku di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lépp looy ut ci doomu aadama rek boo me ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko fa te lépp looy ut ci keneen loolu dafay jeex fekkee na taam nga ut ci nit taam boobu dafay jeex fekkee alal la day jeex leneen leneen bu mu wuti doon loolu dafay jeex moo tax mu gàttal ko na kullun wala ilaahu wa barxaama mubtalan bi ahmada xayri nnaasi ayni lbahaari wa min xasanin jaaru alayya wa innani mubarizu aqraani awaana sigaari dam ba ne wa inni abdullahi aslu kitaabahu wa jambi rasulillahi jahlu qalil man kenn ku nekk am nga koo bëgg waaye man yàlla baaxee na ma ma sama xol bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ci ne kenn du ci nekk ku dul moom ndax kenn ku nekk am nga koo bëgg waaye man sama bëggeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la jëm ndax lépp lu ñu ut rek ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la nekk fekkee na taal ngay ut ci nit ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy aynul bahaa yi mooy jëmu taal fekkee ne askan ngay ut ci nit ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy xayrun naasi fekkee ne da ngay ut alal yàlla dafa wax ne allahu wal mu'ti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahu al-mu'ti wa al-qasim yàlla mooy joxe waaye man maay seddale man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bépp ngëneel bu bàyyi ko ci yàlla ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la jaar fii ci àdduna ak fële ci àllaaxira mooy rahmatul muhda mooy yërmande bi nga xam ne yàlla wàcce na ci mboolem mbindeef waaye tamit keroog des na ci mooy barab shafaatul umma mooy barab shafaa amul benn yonent bu mën a dugal xeetam ku di yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam mooy borom al kawsara kawsara bi nga xam ne yàlla ak yow si alquran inna a'taynaaka al kawsara fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka labtar mooy géej gi nga xam ne def gi nga xam ne yéenant bi melal na géej googu war façon géej la mu ne leen teen la wala géej la boo xam ne ne ndox mi mu ngi mel ni lem bu mu booleeg meew xetam gi mu ngi mel ni misk asfar waaye képp ku ci naan di nga dox nga jëm janoog jëmu yàlla ci yéen keroog bés pénc bi ku nekk mooy yéen a jëm yàlla de waaye yàlla baaxee na képp ku naa ci kaw solo di nga dox ba jën ak jëmm yàlla ci moo tax bàyyi mu ne damay sant yàlla sama dund dafay neex sama dee dafay neex ngir jën ak jëmm yàlla ci xayaati ya taxlu bil mahabbati wa tuqa wal mawtu yaxlu bi shuhudi kadaliki sama dund dafay neex ngir bëgg yàlla ak yonent bi waaye sama dee dafay neex ngir jëm ak jëm yàlla ji law rasu min nii wal muxaya wa kalkali wa batni wa sadri wa fuaadi wa maamuna wa saalifati aw kaahili duma jaanibi fa kuli li xayri xalqi walhal mudaahina wa lahluuna wal awlaadu wa saxbu kullama xawa li mulkan wa ma kaana daal yéen bi sallallahu alayhi wa sallam boo mu sa yentu moom mooy samay soxna sama alal yentu bi daal laa làqoo ba képp ku laqoo seen di sallallahu alayhi wasallam xam nga ne kooku fu mu laqoo mooy jëmu kóllëre te jëmu kóllëre yéen di sallallahu alayhi wasallam mu xóot lool mooy ne nu yonent bi mel ak yàlla man mu laa yonent bi yonent bi nu mel ak yàlla dafay jaamu yàlla bañ kaa sàkkal sàkkal bokkaale mu ne ma al xaqi xaalatul amini ka xaalati ma al mustafa al muxtaari nurul abaatali يوحده والحق يدي صلاته عليه وأهدي نحوه بالمداحي man noo mel yonent bi salaa sallam noonu la yonent mel yàlla ne la yonent bi na mel yàlla dafay jaamu yàlla bañ kaa sakkal bakkaar yàlla nu mel yonent bi yàlla dafay julli si yonent bi salaa sallam moom ka ay malaakam man bàyyi ñoom man bàyyi nag moom mel yonent bi damay julli si yonent bi salaa sallam julli koo xam ne du jeex mukk damay sëlmal ci moom sëlmal alayhi salaatu wa salaamu bi kasara taslima àllum sa rek damay tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàgg bu wax na te du jeex dam ba màggee dam ba génn àdduna di koy tàgg ñu foog ne ma taxaw bés bee ci tamit di koy tàgg dem naa ba màggee ñu ne ma kat fi ne ni am nga ngànt sa ngànt moo gën leer ak jant mu ne xooloo na laa taxruj li suqmin wa mahramin fa udruka misil sa zahirata aw taxu fa xul du shifa suqmin wa qul bi baabihi عن الطب يغنيني كمن ظل يجرح وأخرج للراحات والناس كلهم يروح ويغدو للحبيب ويفرح وأترك ليلى ليس بيني وبينها سوى ليلة من لي بذلك ينصح dëgg dëgg jëmm jooju moo bëgg yonent bi jëmm jooju moo jeex ci yonent bi ba tax na jeex boobu mu jeex mu ne dem naa ba màgget <coughs> bëgg a ziyaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gant moo gën a leer jant ndax dikkee yi nga xam ne dikkal naa ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam malaaka bi dina la présenté ne diw sàngam ca dëkk sàngam ca barab sàngam mu ngi lay nuyu ko nuyoo waaye xam ngeen ko mel ni waaye xam nga ko ko présenté boobu xam na ko miin na ko xam ne yónnee na xolam ay yoon yónnee na jëmmam yónnee na léppam xassa bi annani safina lahu min kainaati Muhammad kon kooku ko fay présenté waaye bëggeel ak cofeel boo xam ne ne du jeex mukk ndax nit yi boo ko bëggee naka war na ko doon laa bëgg lu mu ko sóoni mu doon yemal xolam waaye tarawoon ne euh, jëmmam ca barab boobu moo a lépp lool lëf bëgg na ko bëgg boo xam ne ne mu ne sama bëggeel dara moo ko yokk même bu yonent bi duggaa duggaatoon ak man benn jamono ma zaadani fi zeyyi cheyun walhamdulillah mooy ne ma zaadani ma zaadani fi mahabbati cheyun walhamdulillah su ma bëggee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma dundoon ak moom ci saa si mu ñëw aatal ci jamono dara mu toog sama bëggee ndax lépp lu muy bëgg ak lépp lu waree ci man ci moom jox naa ko ba pare lu mu nangu ci loolu yëpp mooy ne dafa bëgg ànd bi yëpp seedal ne bàyyi ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seede boobu moom ñaar mooy ne wax na ne sama bëggee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam attekat yëpp atte ne ko taali alqaadi alxubbu wa mubalizu bi anni mujalli fi mahabbati ahmadin lidalika aqdi fi lwujudi bi asrihi fada asalu amlaaki غير مكلفين attekat bi daal bu demee bay atte da atte na gannaaw bu tàggkat yi yonent bi yëpp taxawee ku nekk di tàgg ku nekk di wax melokaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelam ci moom waaye bu ñëwee ba xam maani yi ma xamee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni damaa dund ak moom jamono sama mbëggee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn mënu ko aw Mawlana Cheikh Islam Hadj Ibrahima bi ne nañ ko seedal ne moom barhama wa ashq la kon ñu ngi sant yàlla bu baax ci dajee bi nga xam ne dajee ne ko ngir màggal jëmm jooju nga xam ne bëgg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bëggeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bëggeel yàlla nañu képp sama sunna yow ku dañ ci xamal kan lañ bëgg su ko defee sin sooku ci moom gën a yokk bu suñ sooku yokkee laa yanaalu maa indinaa illaa bi sabqi wal mahabbati kenn du am suñu ay tëbbit ak ay may lu dul dëggu sama mbëggeel wala lii mun nañoo may dëkku te képp ku dajee wala képp ku toog ci yenn taay bi nga sa cofeel ak sa dëkku ak sa mbëggeel waaye na loolu yàlla taxawaay bu rëy rëy la ci man ndax leelatul xadri bi nga xam ne moo koy def ci kër Cheikh Mamadou Hadj dafay woo waa Amérique yëpp di leen soññ fexe ba créé fa benn dugal mboolem li xew ba pare di mboolem taalibe yi na leen kaay leen ngeen taxaw ci euh, leelatul xadri bi ko ba ci am ñu ngi béggee sa lool euh, ah bàyyi dafay wax ne al ihsaanu laa tujaazi bil teraanga bul ko fay fàtt képp ku la defal teraanga boo ko fay teraanga jooju nga ko ñaanal yàlla ah gannaaw muñ koo fay teraanga ji ñu defal nag ndax loolu ñaanal ko yàlla yàlla yàlla barkeel ñu bëtoom ak dalam ci Mawlana Cheikh Islam ndax loolu rek la may ñaan yàlla yokk wërsëgam ba lépp mu bëgg a liggéey fee bi yàlla defal ko ko. Euh, di gërëm bu baax sëñ Talla bi naan may ko boo déggoo kàddoom rek fàttaliku Cheikh Abdou Barham ci taxawaay bu rëy a rëy ci taalibe yi ñu koy gërëm di koy sant di koy ñaanal yàlla di ñaan nag parce que bëgg nañ mu koy teew saa su nekk caagin nag xàjjee ji wala dara waaye nag bëgg nañ teewaayam ndax teewaayam dafay yokk taalibe yi a baax a baax di gërëm sëñ Ousmane Mbow di gërëm Moussa Frade. nga xam ne doomu sëñ sama maa moom ñoo bokk sëñ Hady kenn werantoo ko xam ne ni ma mel sëñ Hady moom tamit noonu la benn position lañ taxawee euh, baax a baax a baax si taxawaayam di nga ñaanal yàlla wér ak wér la yàlla yàggal ko si kanam di gërëm Alaaji Babou Touré di gërëm Modou Mbaye di gërëm Ibou Gueye bu baax sëñ Ibou Gueye ñu ngi lay nuyu di lay sa taxawaay waaye di nuyu bu baax soxna su baax si Fatou Kiné Gaye Fatou Kiné sa taxawaay lool ci bés bi euh, waa yi bëgg nañ ci sa taxawaay lool ci ñu ngi bëgg lool bu bëgg yàlla nga di ko gërëm Fatou Ba magi ndey Ba di gërëm sama xarit sama àndandoo ci yàlla ba mi kamara bàyyi na itam yëpp moom tamit ñëw Baye Cheikh Camara ñëpp xam fépp ku ma xewle rek ci Gambia dafay bàyyi itam moom ay xaritam ñoom xewle daal dafay ñëw ku ma bëgg la lool waaye nag yàlla rek moo tax mu bëgg ñu ñu ñaan yàlla colère googu nga xam ne Baye amoon na ko monsieur Mamadou Adi yàlla matal ko du ma fàtte mukk suñu Ousmane Mbow Cheikh Hadi Diallo wax na ko léegi sama doon la bu yàgg monsieur Ousmane Mbow bàyyi koo Dakar bàyyi teem yëpp ñëw ci bés bi euh, dara war na yàlla dara war na ko tamit ngeen xam ne Adja Nday Ba bëggeelam ci Cheikhul Xayri amul ci sikki sàkk ñu bëggeel gu dëkk muy buntam ci Mawlana Cheikh Islam di buntam ci baay di buntam ci lépp muy Adja Nday Ba nga xam ne yéen bokk naa ni Cheikhul Xayri mi nga xam ne maarifa maarifatom ku nekk xam na waaye bëggeelam ci Cheikh Mamadou Hadi ku ne xam na mu may nettali benn bés Cheikh xëy mu ne sëñ Hadi ba mu ñëwee ci benn dëj bu gaaw benn farag la am Mauritanie xaw ma dañ moo gaañu la mën a wulu nax mu ne sëñ Hadi dafa wax ne ne du kenn kër mu xaddam dafay ñëw jàll rek départ Cheikh xëy dégg loolu na Cheikh Hadi ñëw na ci euh, dëj bi mu dem toog mu gis ko jox ko addiya mu dem ca daj ba ñu ne ko suñu addiya bàyyi na ko fa léegi dem kiis mu daal otom continuateur kiis ñu ne ko ba suñu addiya bàyyi na ko fi léegi dem maxtal xajaar mu daalaat otom continuateur mu daana ñëw maxtal xajaar ñoo ko maxtal ñu ne ko suñu addiya bàyyi na ko fi léegi dem roso mu dem roso tamit ñu ne ko suñu addiya léegi la jékki ci baag bee la nekk mu jékki fekk ko fa pour que xamoon naa ne dañ ko fekk. xawoon naa la dinaa la gis mënumaa ñu Mauritanie bi te gisuma loolu fekkee ne am na lenn lu muy rek mooy dëggu ak bëggeel bu waaye nag ñaari fàttewul loolu ba tax euh, sama rak moo bokkam ndey ak bàyyi Cheikhul Xayr la ko joxoon muy Cheikh Tidiane tuddee xalifa bi Cheikh Tidiane Ibrahima Niass Cheikhul Xayr la ko joxoon moom ko jàngal ba mbokk alxuraan wax ko léegi la waaye sant yàlla ci loolu bu baax. gërëm Kamb Thiam gis naa ko fi mu dugg léegi waaye tamit di gërëm Badou bi tey moom tamit moom fi mu ñu ngi leen ñoom ñëpp ñu ngi leen gërëm di ñaanal yàlla Kamb eh, yàlla diggi tekkam di jafe-jafeem barkal yi ngotam ak dalam ku bëgg sa ñaari ku bëgg a yàlla yàlla yàlla jotal koy càkkute fam yëpp ak boole mbébétam waaye bàyyi seen i bàyyi ko duñ ko fàtte koy ñaanal yàlla yàlla fay teg moom Ibrahima Lo nga xam ne loolu fàttali waaye du fàtte si gàtt daan na ko guddi gi xuus na fii bu ñu ko yeewoon sax yaakaar naa doyal ngeen ñu ñaan saa ci alayhi salaatu wa xaw ma nag dañuy woy siira bi tuuti fukki minute wala dañuy tàggatoo mu ngi des ci yéen rek. yes loo def loolu la. ah yow loo def loolu la. lu ma def loolu la loo def rek loolu la. <laughs> te gërëm nii. man doylu ma ci Gambia waaye dama mel ni nit ñi dañoo yàkkamti te suba dañu war a liggéey jotaay bi yàgg na. ba ñu siira benn dix minutes fukki minutes ñu mos yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñëwal ci buntu euh, waaw noonu ba ñëw na ñëw ci leer yonent bi ñoo ñëw ci leer yonent bi ñu mos ci tuuti rek barkeelu ci guddi gi ndax bu di bàyyi ba tudd yonent bi boo tàggee yonent bi rek tagg nga bàyyi ndax bàyyi lépp a tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant yàlla ba ñëw na ci loolu awaloo yooyu waaye nag duñ participer kat yi bu baax les saa wi laat ak ñaari cheikh yi seen ak asan cheikh Thiam tey suba ñu war a bokk yendu barbaam batamaar ah, maa asan camara waaw ñu ko fàtte bërki démb ñoo bokk nekk fële ca asi jéemu ñu koy ziyaara bu baax a baax bu baax nit bu sell ñaan yàlla yokk lijaabam di nuyu bu baax Aliou Tunkara Pape Samba Thiam ñi moom daanaka ci man bokk bu ma leen tamit dafa mel ni tudd sa bopp rek doomu aadama mu tudd boppam dañuy sama bopp leen bopp ñu nuyu di leen ziaral di ñaanal yàlla yàlla faj seen yëpp ci zaahir ci baatin ñu nuyu waa taab bi yëpp di leen ziaral naa leen waa taab yëpp naa leen jërëjëf yëpp ليكم بالشرقاء تلقى يا بطرق الله طول الليالي يقولون إذا ñaan yi nga xam ne bàyyi moo ko ràmbu lamb lépp lépp bàyyi wu dara muy saadatu daara yi nga xam ne ñaan ñaan na ko fi ñu def ko ñaan yàlla nangu ñi jotaay bi képp fi ñëw yàlla faj aajoom képp ku bëggoon a ñëw te tamit yàlla boole la ci ngëneel yàlla xaasal la ci ceeb lool waaye ñu ñaanal day baax yàlla dëgëral taxawaayam may ko wér wéral tànk yi bu guddi gi koo taxawee ay at yu bëri moom ak ay rakkam ajaat yi da nekk fi waaye xolam ak xelam yëpp fi tey la fi bàyyi koo dem Amérique wutu war ci yaarox yi nga xam ne am na doom ñaan yàlla doom jooju yàlla yàlla dundal ko tabarkeel ko man fekkee njëriñ lépp ñu ñëpp ñu bokkandoo tàllal yéene yàlla faj aajo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 bismillahi rahmaani rahiim qul allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmaani rahiim qul allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamdu bismillahi rahmaani rahiim qul a'uudu birabbil falaq min sharri maa xalaq wa min sharri gaasidin idaa waqab min sharri naffaasaati fil uqad min sharri haasidin idaa hasad allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamdu bismillahi rahmaani rahiim qul a'uudu birabbin naas maliki nnaas ilaahi nnaas min sharri waswaasil xannaas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 ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وحمزة والعباس وجعفر والعقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن عظيما ربيع قلوبنا اللهم نجب قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به امورنا ووفقنا لما يرضاك عنا اللهم اجعل القرآن عظيما امامنا وقائدنا الى الجنه ولا تجعل خلفنا سائقنا الى النار اللهم اجعل القرآن عظيما شفعا وشفعا فينا ولا تجعل محلا مصدقا فينا اللهم اجعله لنا ولا تجعل علينا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 جعلتنا على قضائها في سلمك وعافية إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات وذكر الحكيم اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا وارزقنا تلاوته وحلاوته آلاء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك اللهم ما قضيت به علينا من قضاء فاجعلها في رشدا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 عجلنا بالفرج ونجنا من ضياعة الحرج وافرج علينا من حماك الأمن صراطك الحلبي النعيم اللهم احفظنا بعينك نسيلتنا وكرفنا في كنفك الذي لا يرام وجعلنا في جوارك الذي لا يحكم ولا يضام اللهم انا نترك في نار الاعداء ونعوذك من شرورهم اللهم اكفنا بما شئت اللهم اكفنا بما شئت اللهم اكفنا بما شئت اللهم انك اعلم باعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا وحاضرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا وطاعنا وعاصينا اللهم اغفر لنا اجمعين وتوفنا مسلمين واحشرنا بزمرة نبينا الصديقين والشهداء والصالحين وفينا ما اهمنا وما لم يهمنا من امور الدنيا والدين وكفانا يد المعتدين رب اجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آمين حق المرجاء العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ربنا سبحانك بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق المرجاء العظيم اللهم صل على Allah'a emanet olun.